mbokk internet yi topp Télé Sénégal TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci seen émission 2024 plus ni ngeen ko tàmmee am du lundi au jeudi ñu yaakaar ne vous avez passé un très bon week euh, di am mbégte mu rëy dellusiwaat ak yéen euh, ci waxtaan bi ànd toujours ak sunu chroniqueur maison le grand Cheikh Kane Cheikh euh, maa ngi lay nuyu. salaamaaleykum soxna Fatou maa ngi lay fay di nuyu sunuy mbokk internet yi nga xam ne ñu ñu seetaan. et comme d'habitude c'est un plaisir ah toog sa plateau di am yaakaar euh, lépp lu ñu waxtaanee fii rek mu doon gëneel si ñun ak si askan bi incha allah alors euh, Cheikh euh, actualité bi euh, c'est purement politique hein comme justement niñ ko war a amee si émission bi parce qu'on parle de 2024 plus donc lépp lu jëm si wàllu élection présidentielle bi ñu dëkkmal surtout moom la ñuy waxtaanee alors bi ci njëkk Cheikh amoon presque vers la fin de semaine mooy juge Ousmane Racine Thion mi motivé sa décision anéantir également maanaam neenal li ñu daanoon Ousmane Sonko ci mbiram Sweet Beauté digganteem ak Adji parce que nee effectivement contumax la woon donc bañ ko jàppee te fekk délai de prescription bi jeexul euh, boobulee daan dafay daal di faxasu euh, kon euh, acte bi nga xam ne ci la ñu tënkoon itam génnee Ousmane Sonko ci liste électorale yi loolu dafay mujjee neen sans compter nag problème mu publicité yeeg ya ca njàmbaasu loolu mel ni lu ñëw conforter justement le juge Sabassi Faye mais aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo doon wax ne Ousmane Sonko bañ ko jàppee ca buntu këram pour vol de téléphone portable la ñu requalifier les les Euh, daan ba rot ba jeex kon il retrouve il revient dans la course présidentielle waaw faatu euh, quand même euh, cas Ousmane Sonko c'est un cas bi nga xamante ni dafa am solo ngay wax cas d'école waaw c'est <laughs> xam naa ne dans l'histoire politique du Sénégal mm. dans les euh, grandes écoles comme les universités et autres mm -hmm. un jour ou l'autre il faudra poser ce débat là nga xamante ni dinañu waxtaanee Ousmane Sonko. Mm. pas en tant que euh, en tant que politicien mais en tant tant que ki nga xamante ni quand même euh, arsenal juridique bi euh, bu Sénégal am euh, mettre nañ ko en branle. Mhm. pour mu mën ko quand même faagaagal ba nga xamante ni élection présidentielle yi nga xamante ni ci lañ jëm. 2024 mhm. du si bokk. on a vu quand des des précédents dangereux yi nga xamante ni gis nañ fi état du Sénégal à traversion ministère de l'intérieur. assiégé li nga xamante ni mooy le domicile de Ousmane Sonko. pendant plus de cinquante jours. bi nga xamante ni loolu am na on a vu finalement cinq jours cinquante cinq jours ñu ne ñu au finish il y avait aucune décision euh, de justice ni aucune décision bi nga xam ne dafa fondé wu sur la légalité mm. euh, bu waral loolu à part euh, ils nous ont mis en avant euh, des questions de défense et de sécurité Euh, mu doon loo xamante ni quand même c'est trop léger c'est-à-dire tey euh, li dal Ousmane Sonko ci nga xamante bi nga xamante ni dañ koo tëj këram mën na dal n'importe quel Sénégalais ah l'État du Sénégal peut se réveiller un beau matin euh, cloisonner la sa kër ne la doo génn pour quelle raison doo ko xam parce que y aucune décision bu ñu teg sa loxo ba nga mën parce que ni judiciaire ni administratif c'est que xam nga citoyen dafa soxla mm. yoon bu dalee si kawam ñu jébbal ko ab bataaxal parce que bataaxal boobu muy jot ñaar la si mën a jëlee mooy benn bi mu ne man d'accord naa ak liñ ma teg mu toog dékk ko ba mu jeex wala mu ne non d'accorduma si liñ ma teg mu mën a jël kayit googu mu doon firnde mu dem attaquer ko devant les tribunaux tribunaux yi saytu ndax ces droits ont été violés ou pas bu dee ces droits ont été ñu ñu rétablir ko dans ces droits loolu moo tax mu am solo notification mais au Euh, euh, bu ñu apprécier procès Ousmane Sonko euh, bon ce nouveau ce dernier feuilleton là concernant sa radiation mm. gis nañ ne au niveau de de Ziguinchor déjà le juge Sabassi Faye mm-hmm. avait pris son courage à deux mains wax lu leer ci li nga xamante ni mooy radiation Ousmane Sonko on a vu aussi que les avocats de l'État donc à l'instar de l'agence judiciaire de l'État dem nañu Euh, fi nga xamante ni mooy cour suprême pour jéem a casser décision boobu muy euh, li nga xamante ni mébét bi nga xamante ni euh, juge cour suprême defal na leen ko ginnaaw bi mu jàppee ni juge Sabassi fay n'a pas assez motiver sa décision loolu am bon ñu delluwaat c'était quand même le premier round le deuxième round bi ñu renvoyé ko au niveau de du tribunal de grande instance de Dakar pour mu àtte bi mu àtte waatee encore wax nga ko léegi léegi juge bi nga xamante ni mooy Ousmane Racine Thion euh, moom tamit euh, jël na euh, àtte si aqulaay taalam ne Ousmane Sonko radiation bi ñu ko rajee ci liste électorale yi du yoon nañ ko delloo ca liste ya hmm. donc gis nañ fi tamit dans un premier temps bi saaba si Faye jëlee décision joxe ko dañoo yóbbu décision bi fi nga xamante ni mooy DGE malheureusement DGE mujj ko nangoo nangoo doxal ñu ñëw encore ci beneen ci euh, beneen question mooy léegi nii am na décision de justice bi nga xamante ni euh, juge Ousmane Racine Thion jël na ko léegi nag la question qui se pose mooy est-ce que bii yoon administration bi dina ko doxe est-ce que DGE dina nangu jébbal ki nga xamante ni mooy Ayib Daffé chez fiche de parrainage quand bien même on a appris que aujourd'hui euh, Ayib Daffé demoon na fa demoon na fa pour jël ay fiche de parrainage pour le moment on on reste prudent parce que jotuñu benn communication officielle buy mën a wax ne ni euh, Ayib Daffé ndax jële na fa dara ab ab déet est-ce que loxo yi neen la fa jële am déet toute hmm. façon je pense que dans les heures qui vont suivre dinañu gën a am euh, ay informations par rapport ak loolu hmm. mais Ousmane Sonko encore une fois Euh, il a gagné deux grandes batailles c'est la bataille de Ziguinchor et la bataille de Dakar hmm. léegi nag euh, gis nañ tamit les avocats de l'État am benn position bi nga xamante ni jël nañ ko nee nañu Ousmane Sonko mënul bokk pour le moment parce que cette décision là elle n'est pas encore exécutoire. Malheureux, malheureusement ou heureusement un, un grand juriste de ce pays-là à l'instar de maître Mame Adama Gueye génn na euh, wax ci week-end bii ñu génn nii ne ne quand même un pourvoi un pourvoi en cassation donc n'est pas suspensif bu dee looloo am donc cette décision-là elle est définitive elle peut être appliquée et elle doit être appliquée pour que ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko ñu delloo ko ak xam ak yelleefam euh, ñu permettre ko mu récupérer ses fiches remplir ses parrainages dem déposer ko comme ñëpp. ni ñu ko commencé defee depuis euh, le euh, bon depuis le treize je déjà le onze déjà ñu dem déposer comme ñëpp mën a bàyyi lépp li des ci loxo conseil constitutionnel mu mm-hmm. choisir ki nga xamante ni moo war a dem. dagan baas baatu askan bi euh, le 25 février 2024 euh, pour li nga xamante mooy élection présidentielle mhm. Cheikh li nga wax léegi avant maître Mame Adama Gueye di ko wax c'est ce que dit l'article du code électoral moom lañ fi doon faram-fàccee keroog en matière électorale su justice dogalee dañ koy appliquer parce que recours yi mënul suspensif ndax le délai est court il est encadré la période est encadrée donc loolu la code électoral wax maintenant li nit ñi comprendrewul à mettre en œuvre ces décisions de justice li code électoral wax leer na tous les juristes yi ñu ne ñu maandu lañu ñu tëddee njaaxanaay ci réew mi loolu la ñu wax maintenant on comprend pas li tax dafa mel ni tamit euh, avocat état suñ taxawee wax am na fu ñu ko teg. Mm-hmm. ñu ne Ousmane Sonko euh, mënagul dugg ci liste électorale yi parce que ñoom dañuy dem pourvoi en cassation te loolu dañ ko wax balaa DG wax. te xam nañ ne tamit lépp benn branche la est jëmuñu ci liñ dundoon euh, la première fois bi Sabasy Faye dogalee. waaw euh, euh, mu ñàkk mu bañ a am peut-être moo doon mbetteel parce que tamit lu xew mën nañ ne mën na xewaat. lu mësul xew kay mooy doon surprise. nit ñi ne ah lii de mësul xew. bu xewee dina bett. Ah, si l'État suit sa logique. mais si l'État suit sa logique depuis le début ni ñu doxalee ba léegi ba ni DG e bañee ba ni Sénat. addoo mm. ba ñu dissoudre ba ñu mettre fin au mandat des membres de la Sénat. seen mandat na sax. waaw dañ leen daax donc mais quand même comme je l'ai rek. <laughs> Euh, il a fallu euh, ñu jël une position bi nga xamante ni ça n'épouse pas forcément les intérêts du régime de Macky mm. pour ñu euh, euh, daal di leen fi jëlee quand bien même. mënoon nañ leen fi jëlee bien avant ils ont largement eu le temps ils ont largement eu le temps moi je me dis depuis Euh, le temps que seen mandat jeex. Mhm. donc il fallait prendre une décision. Mhm. jël ñu yees ñi nga xamante ne ay ay ay ay liggéeykat yu yees tàbb leen foofu ñu mhm. occuper euh, Sénat mais gis nañu bi Sénat jëlee décision bi nga xam ne favorableul euh, DG tenir na ko tête te ginnaaw bi ko DG tenir tête Sénat moo si moo si nërmeelu mën nañu dundaat lu mel noonu. parce que xam nga Sénégal instant bii nii on est dans un pays boo xam ne ou bien dans un état où droit. n'est pas dit forcément ou bien il n'est pas respecté tey gis nañ fi comme li ma la wax rek y a des antécédents yoo xamante ni euh, am na fii nii gis nañ fi euh, ñu jël fi ay décisions yi nga xamante ni euh, sunu administration taxaw na ne du ko doxal donc euh, le droit est remis en cause administration bu demee bay am fit décision de justice daanu administration taxaw ne duma ko doxal Euh, loolu noonu c'est c'est c'est d'une gravité extrême mhm. gis nañ fi même euh, au niveau de la communauté euh, euh, des états de l'Afrique de l'Ouest ñu gis ne ni décision de justice jóge na CEDEAO état du Sénégal si boppam moo taxaw au non de la souveraineté ne moom du loo xamante ni da koy doxal je rappelle toujours avec une certaine ironie <laughs> que bañ nañ ne bu leen euh, ba ñu bëggee dem Gambie CEDEAO jox leen feu ils ont exécuté sans même chercher à savoir ndax c'était une décision bi nga xamante ni jaar na wala jaaru yoon bi ñu nee euh, dañuy euh, envoyer ay forces armées au niveau du Niger mm. Sénégal encore une fois euh, nanguwul fàttaliku ne CEDEAO waru ko jox benn injonction wala maanaam CEDEAO donc warul melewu si nga xam mooy des questions de souveraineté mm. CEDEAO tey mu ngi taxaw ne nañ libéré ki nga xam ne mooy Bazoum au niveau du Niger Sénégal mu ngi si ànd ba léegi donc Sénégal deux poids deux mesures lay doxee. loolu CEDEAO barki démb ba mu àttee Ousmane Sonko ne aucun de ses droits n'a été violé ñoom dañ ko jubilé. dañu jubilé voilà donc quand ça les arrange donc euh, quand des décisions tombent yi nga xamante ne day arrangé état du Sénégal l' état du Sénégal applaudit malheureusement dañuy manqué fair play. fair play bi day wane ni euh, chaque fois bu ñu leen daanee. dañuy mm. taxaw di au nom de la souveraineté ñu koy brandir. Euh, di di ne Sénégal dëkk la boo xamante ni justice mu ngi fiy dox effectivement dëkk la boo xam ne justice mu ngi fiy dox mais day doxee benn boor. donc c'est la justice pour euh, pour les opposants la justice pour les pauvres mais dafa war a doon une justice impartiale bi nga xamante ni que nga pauvre nga riche mhm. nga doon politicien nga bañ a doon politicien nga bokk opposition am déet sa doit être une justice bu tëddee njaaxaanaay bi nga xamante ni sénégalais bu nekk am nga sañ-sañ am nga droit am lu la metti mhm. nga jóg dem si justice boobu noonu jooy ko fa justice def li war delloo la say droit loolu la ñuy xaar toujours mais encore une fois DGE euh, bu defee leneen lu wuute ak li mu defoon dina doon mbetteel si ñëpp nag mais ce sera une agréable surprise parce que euh, la preuve keroog ba ñu ne euh, Ousmane Sonko daan na état du Sénégal si euh, question radiation bi nga xamante ne euh, ñu ngi ko doon àtte au niveau de du euh, tribunal de grande instance bu Dakar gis nañ ne y a eu quand même au niveau du marché de au du marché poisson de Pikine mm. ay nit yu kontaan di jubilé donc gis nañ ne y nit ñi kontaan nañu bëgg nañ ci décision boobu ça veut dire que aujourd'hui les sénégalais ils n'attendent que ça mm. que ñu ne Ousmane Sonko bokk na ginnaaw bi ñu nangoo tamit ñeneen ñi bokk parce que aussi ce combat là c'est pas un combat partisan du euh, Ousmane Sonko kese na war a bokk non non ñeneen bu ñu bokk non c'est un combat bi nga xamante ni euh, Ousmane Sonko na bokk les autres leaders de l'opposition ñi nga xamante ni ils ont rempli les critères ñu mën leen bàyyi ñu bokk à l'instar de Khalifa Sall par exemple de Karim Wade et des autres et des autres ku nekk ñëw euh, teg samp seen dënd mais aussi quelque part on a remarqué que au niveau de la de la caisse de dépôt et de consignation nee nañu yaa à peu près Euh, plus d'une quarantaine 43 précisément 43 candidats plus précisément yu déposé caution bon moi je me demande euh, ñooñu euh, <laughs> bon heureusement ou malheureusement parce que moi je suis pas trop fan je suis je suis partisan du parrainage mais je ne suis pas fan de la manière dont le parrainage se déroule au Sénégal man loolu mooy suma mm. problème mais il faut filtrer il faut filtrer il faut filtrer et là c'est obligatoire mais aussi faut pas filtrer les gros poissons bàyyi li nga xamante ne les xuusmaa ñap ñu jàll <laughs> parce que bon je suis désolé oui c'est comme li ma la wax rek amateurisme baaxul mm. Euh, ñi nga xamante ni gars yi xamuñu leen woon mësuñu taxawal Sénégal sooy segg c'est pour euh, prendre les meilleurs les meilleurs donc euh, daf dafa noo xam c'est bon j'aime pas trop parce que on, on dit que le président Macky Sall il fait une sélection c'est vrai de c'est euh, voilà c'est une sélection mais dafa war a doon un tri boo xamante ne rigoureux bi nga xamante ne dina permettre ñi nga xamante ni taxawal nañu Sénégal xeexal nañu Sénégal Euh, ñu mën a bokk mais ñi nga xamante y a des gens aussi yoo xamante ni kenn mësu leen dégg sur les questions yi nga xamante ça intéresse des Sénégalais mësuñu si wax mësuñu si xeex mësuñu si dox ñu aussi on va pas du jour au lendemain parce que voilà jox leen suñu réew kenn xamul voilà seen CV ñun euh, xamuñu seen CV leur prouesse xamuñu ko fu ñu jaar xamuñu leen et puis peut-être parfois même. defuñu seen ay preuves aussi defuñu ay preuves il est grand temps que. nekk bitim réew régler ay problèmes ak nekk fii les réalités ne sont pas. non ça peut en fait régler ay problèmes bitim réew sax ça peut être xam nga l'essentiel mooy euh, nga am présence sur le plan national. parce que ñi dem bitim réew il faut savoir la priorité c'est sur le plan national mm. euh, ñi dem bitim réew gaa fii lañ jógee il faut s'en occuper peut-être tey su ma nekkoon à l'étranger en Espagne etc je peux militer dans des mouvements yoo xamante ni c'est pour euh, les ressortissants sénégalais mm. jàppal leen ba seen ba seen dund seen euh, nekkin ñoŋ foofu noonu mm. mais ginnaaw loolu aussi je dois me faire connaître aussi si pays bi parce que aussi comme euh, je dirais pas comme Barthélémy Diaz mi nga xamante ne nee na euh, la diaspora lay représenté du fichier et que ñoom faluñu fenn faluñu fenn je suis pas d' accord mm-hmm. mais ginnaaw bi nga liggéey foofu c'est important nga ñëw au niveau local nit ñi xam la xam yow yaay kan mm-hmm. aussi mm-hmm. pour que suba boo amee ay ambition yi nga xamante mooy ambition présidentielle wala n'importe quelle autre ambition muy ay ndombal tànk yoo soxla si réew mi nga doon ko légitime nga xamante moom la ñuy